ñu noppee ñu jàng iza jaa nasrullahi wal fathu ba saaro jeex benn yoon bu ñu noppee ñu jàng suuratul ixlaas fanweer ak juróom mu mel ni juróom benn rakk la rakk bu ci nekk ñu jàng suuratul fatiha benn yoon bu ñu noppee teg ci iza jaa nasrullahi wal fathu ba saaro jeex benn yoon bu ñu noppee ñu jàng suuratul ixlaas fanweer yoon ak juróom mel ni sëñ dafa wax ni naafile yi kat képp koo xam ne daf na ko seen borom subhaanahu wa taala dana ko nangul mboolem julli bi mas a def waaye nangul ko mboolemi kooram te dees na ko soppi lépp loo xam ne ñaawteef la mas koo def ñu soppil ko def ko ko ay yiw waaye it dees na ko tabaxal dëkk wu rëy woo xam ne ci àjjana ci araf ci nekk te dana mel koo xam ne leer na mboolem xeetu yonte bi sallallahu alayhi wa kon ñu ngi ñaan yàlla sunu subhanahu wa taala kàttan nañu ba ñu joxe ko te mu nanguñu ko bi jaahi saydi saadaati alayhi xayru salawaati wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa